eh Samba Lawbe Samba Lawbe la ñuy jëm. Samba Lawbe moom ngay delloo eh, basam de. Samba Lawbe école de lutte Balla Gaye. ah waaw si. Eh, eh. xale xale bi xale bi buy buy bëre sax président di ñëw ah. maa la ndeysaan ndeysaan bébé Talla ngi noonu bébé Talla ak Samba Lawbe waaw bébé Talla écrit yëmbal mare yëmbal mare la ñooñu tamit ay ndaanaan la ah waaw yëmbal mare mm. maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay ginnaaw sant yàlla ji Seydina Mohamed di ñaari waajur du nuyu ñi saal ñëpp du nuyu bolo ñoo bokk di yàlla yàlla may ka ñaanal yàlla may ka ndam di nuyu Boy Malika ñoo bokk di leen ñaanal di ñaanal yàlla may leen ndam di nuyu suñu waa dëkk waa Mbos Kolobaan Saalum ñii bi Mbar ñii bi Mbar Mbësee Yombuluñ dëkk yooyu yëpp waaw même Mbos maa ngi leen nuyu leen woo di woo suñu maire bi tamit Modou di woo suñu meer bi kii euh, ma Diop Guène waaw moom maa ngi koy woo maa ngi gis tamit lu baax lu muy def Mbos ni muy jàppalee gars yi loolu lépp di maa ngi woo moom mooy maire Mbos bi waa di ko woo pour mu ñëw jàpp si combat moom tamit xam nga kiñ la jox Samba Lawbe xam naa ko baax sànq maa ngi dégg buloo di wax ba tudd kii mu arafaat lawbe kii lawbe la samba lawbe bu jour ba dama koy tuddee faatu lawbe déggoo li ma la wax de yóbbu ko yëmbal jox ko faatu lawbe mu yóbbu ko si paaka lawbe mu toog foofu di yàttu <laughs> noonu laa ko def paaka lawbe salaamaaleykum maa ngi ñëpp ginnaaw bi ma sant sama ñaari waajur sant sama sëriñ Sëriñ Abdou mu yàgg fi loolu te wér di siyaarawaat ñëpp di bëggee ñëpp di sant kànj mi foofu moom dama fay taxaw damay insister damay insister waaw kànj état bi daf ko war a reconnaître si social bi muy def kànj bi daf ko war a maanaam li muy def sax buggul nit ñi xam ko day def man dama fekkee gis mu fëgg ay nit guddi ñoo xamante ni soxla nañ mu jox leen caméra du tàkk dara du tàkk moom mii kon état daf ko war a reconnaître jàppale ko ci li muy def te mi ngi te mi ngi jàppale jeunesse bi mi ngi jàppale ñëpp am na loo xamante ni maanaam bëggul sax ni ko di ko wax comme sànq am na loo wax nga ni day am ñoo xamante ni maanaam dañuy bëgg a tabax man am na loo xamante ni mun naa ko seede mais du mu ko fii li muy def te bëggul sax nit xam ko di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm état bi na ko reconnaître jàppale ko moom li muy li ñu koy jàppalee lépp si jeunesse bi la koy yóbbuwaat di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp waa di gërëm ñëpp saa ne Paa Talla kii laa koy wax di ah eh. taxumaa sax jug maa eh? Eh? taxumaa sax jug si kàttanu yàlla su dëggalee boppam combat bi du yàgg ci kàttanu yàlla su dëggalee boppam combat bi du yàgg. waaw comme li mu wax si Kandji man dama koy dëggal. ma xëy na nag man kii moo ko miinu ma ko quoi mais man yàgg na maa tëgg man yàgg na maa tëgg quoi. waaw man yàgg na maa tëgg te jig na ma. Mm. kii li muy wax nii naan su ma dëggalee sama bopp lamb ji du yàgg. Mm. man dama koy wax moom li fay neex. Mm. moom bu ñëwee. moom na ñëw rek li neex si biti maa koy def li neex si biti. laaj ko lu ma am ci làmb ji moom. Samba Laobé day yëngal naan kii du ki ma toogaloon. saa buy bëri président la lépp liy neex su ma feccee mu neex. amateurs yi man lañ yàkkamti. su ma eh. bëree mu neex. di sant nag képp koo xamante ni yaa ngi naan mbii mi maa ngi lay sant. bu neex si yow. bu jour ba du neex si yow. bébé Talla ngay bëreel déggoo li ma la wax de. Eh. yaa ngi naan Pa Talla ma naan la Maam Talla. Hmm. mais yow jour ba ngay comprendre Samba Laobé. man si keppaar gi ma yoroo ay ndaanaa ma yar waaw ku la dégg ni ngay waxee kay. Hmm. kii boo dégg ni muy waxee sax nga xam ne mbëru waxkat la. <laughs> mbëru waxkat ak jëf mais bu jour ba sa kanam gu yaatu gi na la leer fu mu door rey dal. ak jëf dal jëf. baax na na toog di xaar rek mel na ko mere de. mere kii dinaa eh. kii kii man bi ñu ma ko joxee yàlla xam na ne xooluma ko sax man bi man bi nee ma Samba Laobé damaa dugg xool benn combat ma gis ko ma ni kii baax na ba jour nga gis muy yëngal kii daa mën a yëngal kii kii di mag di mën a am maam taala kii boo xoolee kanam nga xam ne mag la barki Serigne taala bi ngay bëre boobu barki Serigne Saliou Mbacké boobu bëréewu ma bi ngay bëreeg nongoloo bi ngay bëreeg bugaan boobu bëréewu maa ren pour nga dugal loolu sa bopp bi la bëreel man toju ma fenn si yow laa bëgg toj toju ma fenn jeex na si yow laa bëgg a toj jour ba si ah. yow laa bëgg a wanee sama bopp jour ba nag nag Samba Laobé Bébé Talla nga wane jour ba nga comprendre man maay kan ndaanaan nga may ay nekk ak dëkk ay ndaanaan nekk ay saakees nekk ay Youssou Ndour nekk ay gàkku nga naan may man man loolu dafa maa jaaxal may wax dangay jëm jéem mel ni moom xoolal man wéeru ma si kenn dégg waa déglu ma rek. waa déglu ma nangu nangu nangu xoolal nangu noppal sa bopp la. waa déglu ma man wéeru ma si kenn. man yëmbal marin waaw waaw da nga may déglu yëmbal marin bi muy njëkk a am récépissé man maa fa njëkk a bëre. Eh? man maa njëkk a bëre si kenn booy hmm. man maa fa njëkk a bëre man ku ñëw da wéeru sama kaw mais man man wéeruma si kenn. da nga am xaalis bëgg nga jàppale ma si combat ah, man c'est ma jàppale la non non envoyé jox ko Matar Ndiaye dina ma ko jox jëndal benn bologu bee rek Matar Ndiaye jox sant lawbe yi encore une fois lawbe Baara président kenn Baara président yow laay waxal encore une fois damaa bëgg nga jëndal ma ñaari bologu bee hmm. Baara yow laa wax yow Baara président lawbe damaa bëgg nga jëndal ma ñaari bologu bee hmm. maa ngi sant nag xaadim mais oo fayam xaadim lawbe julo maa ngi sant Lawbe Jula yëpp di ko jël di ko teg ci loxoom di sant nag waa Yëmbal waa Grand Yoff di sant staff bi di sant ñoo xamante nii nag dañ may jàppale te yàlla rek tax di sant farandaw encore une fois maa ngi lay sant di la gërëm moo Gueye béy maa ngi la ciy xaar Fat Faye béy maa ngi la ciy xaar di sant koo xamante ni kenn la ci man muy Alaaji Fall maa ngi lay woo ci kombaa bi di sant waa Grand Yoff lawbe Grand Yoff yi lawbe yëmbal yi ñëpp maa leen sant lawbe Grand Dakar yi képp ku daan mbii mi rek ñu ngi lay sant di la gërëm di sant nag sama xarit yi nga xamante ni ñoom laa àndal ñu ngi si suuf ku mel ni Youssou Ndour xam nga di leen ñaanal ñëpp ñu ngi si suuf xam nga di bëgg ñëpp di siyaaraat ñëpp waaw di wax nag comme comme li ma waxoon léegi-léegi rek kanji mi hmm. état bi nañ ko jàppale waaw li may wax moom maa ngi sant man tamit boo ñu ma àndal Baye Fall Bébé Tall numéro 2 ak Papis ñu ngi suuf di woo tamit Pape Bey tamit le hmm. nga wax mu ñëw jàpp ci ticket yi Euh, mu Alpha kii mu Omar Sow moom tamit maa ngi koy woo moom tamit sama combat passé jàpp na si bu baax maa ngi gis tamit ni muy jàppale waa yëmbal ni muy jàppale mbëri jàmbaari duudu ko la ko waaw moom tamit maa ngi koy woo bu baax waaw moom tamit nit ku baax la combat bi passé dama kaa seeti mu jox ma xaalis bu bari waaw combat bi tamit dinaa fa demaat di woo waa yëmbal tamit di woo waa ndar waa Touba waaw di woo nday mu ndaw tamit waaw sama doom baay la waaw moom dafa maa bëgg di woo tamit mu a tamit sama doom baay man sama doom baay comme samay doom day ñoom dañ maa bëgg ma leen waaw woo ma boo demee nga woo ma mm-hmm. di woo waa ñoom njaga njaga safale ñoom Thierno gaa ñoom ñëpp maa ngi woo la ñoom ñëpp maa ngi leen woo di woo waa Tali marin di woo ñëpp bàyyiwuma kenn di Mbey ñoom ñëpp maa ngi woo ñoom bàcc jaajëf gaa yëpp maa ngi leen woo jour lamb la 14. Thielou maa ngi maa ngi woo dafa am ñoo xam ne leen fàtte te dañ jàppale. waaw ku mel ni xam nga ku mel ni koo xamante waa Touba. xam nga koo xamante ni tam.